Preparation mystique de Talibé bay moom Serigne Diouf ñaning mbaling tere acca mën ngaa ñëw ci tuus bi parel bu mbali acca aril ba sifle na Sylvie Sali mën nga ñëw ci tuus bi acca kan mooy taalibe baay taalibe baay moo ñu won ginnaaw moo yoxosu noonu léegi door ko musiki japp na ngem la ñaari beure kat lañ Serigne ne woon na daan na ko Serigne nag démb daa amoon combat palmarin moo fa dan top 5 nee na tey day defaat top 5 ndax talibé bàyyi na ko baye bàyyiwul del waaye combat bi du yomb digënta ñaring la ak mbaling soriantoo wuñ talibé bàyyi ngi ñuqi si bir bi Serigne jël nako da daa bëgg am ngemb li mom Serigne di premier maire du Sénégal ndax moo njaboote lépp ci bisam la arrivé atana nee na leen ci géew bi waaw waaw waa kër Serigne yee ñu yëngal waa kër Taalibe Baay di yëngal ñu xool ki nga xam mooy mécanicien bu mbaling mécanicien o yor sëriñ waaw waaw dëkk mbaling e jame ñaning yor taalibe baay ñoom ñaar ñëpp ngeemul ruus sëriñ lañ jàkkaar lool sama gaay waaw waaw taalibe baay kay topp noonu ñoom ñaar ñëpp ngeemul ruus lañ mais boo xoolee ci écran bi ki yor gën a yor teint clair mooy taalibe baay Sidi. waaw kay tambour major law eh, law xeex ku gën a liir combat bi yaa ko moom. na ko eh sëriñ war na ko ndomba sëriñ war na ko ndomba taalibe baay dina ci génnam déet taalibe baay sëriñ sëriñ